alors kontaanee nañu leen bu baax a baax euh, gis ngeen staff bi ni ñu leen accompagner voilà di di ngeen comprendre ne rek lépp lu nga xam ne takk der yaa ngi koy def ngir seen kaaraange la ndax euh, mënuñoo taxaw waxtaan ak ñëpp waaye itam mënuñoo taxaw. Euh, photo wu ak ñëpp donc lii rek lañu ci mën a am di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ci euh, fi nga xamante ne yóbbu nañu ko euh, Sénégal muyee nañu la mayo comme ni ma ko waxee léegi xëy na fii la seen aventure yem ci ci ci li nga xamante ne ni moo di Aliou Cissé alors coach a ñu di ko ñaanal mu am tan bu baax coach a noonu. ay ay ay ay gaynde lañu ay gaynde lañu donc dañu leen di eh, alors Bamba Pape Matar Sarr Pape Gueye Cheikhou Kouyaté ñu ngi noonu mhm, ànd euh, staff bi macha allah lii lii du gàcce du gàcce vous avez bien mouillé le maillot porté ngeen sunu ay couleuru réew. défendre ngeen sunu réew ba ba ba fa mu yem ba fa ko yàlla tudd donc dañu ñu ngi noonu nag di dugg ci seen bus bi nga xam ne moo leen war a yóbbu Cheikhou Kouyaté mu ngi noonu moom nag dañuy fàttali ne rek dafa amoon euh, blessure donc moo waral jéewul ci huitième de finaal bi euh, ñu ñu gunge bu baax a baax nag ñi nga xamante ne ni ñoo di seen ay rakk nekkoon ci équipe bi. ci huitième de finale bi gis ngeen ne ci ci mi-temps bi kii di Pape Matar saax moom itamit dugg na donte gars yi ñu ngi doon wax ne Aliou Cissé da koy da koy préserver parce que xale la te am na yenn kii yoo xamante ne ni topp ci moom donc dañuy ragal mu dugg am am blessure wala yu demee noonu. ba tey am internautes ci Sunugal 24 ñu di leen di toppal rek lépp lu di xibaar wundoo ci Coupe d'Afrique des Nations sunu gaynde yi tey lañu ñu ñibbisi ginnaaw bi nga xamee ni rek ñàkk nañu seen huitième de finale gi ñu doon dajeek Angleterre mu mënee leen ñetti bal ci dara donc seen ñëw gi nag xëy na daan na gën a neex waaye tey dafa mel ne dañu ànd ak gàcce waaye lii nag di leen wax ni rek du gàcce ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di kontaanee bu baax di am mbégte ci ñoom di leen wax gàcce ngaalaam encore une fois. leen wax a dalal euh, sekk waxtaan ak ñoom encouragé leen ginnaaw bi mu ko njëkkee def ci ab tweet gu mu defoon doon leen encouragé ci euh, li nga xamante ne nii demoon nañu ca mu ngi ci bus be waaye staff bi ñooy dugg ci bus bi. voilà. Mhm. di ñaawlu également ñàkk génn bi nga xam ne euh, sunu mbokk sénégalais yi génnuñu ko teextoo ko sunu sunu gaynde yi voilà mu di loo xamante ne ni euh, day frustré day frustré gaynde yi donc mënoon nañoo xoolee neneen euh, wala ñu xool sax ci Coupe d'Afrique bi nga xamante ne andi woon nañu ko fi ñu daal di génn gën leen gën leen teextoo teextoo nu nu gën a majesté suis fatiguée là, vous me prenez. <laughs> S'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, ah. Sénégalais, vous attendez. Alors, oui. <laughs> je viens de faire 10 heures de vol, là, je suis fatiguée. Euh, tout va... Vous allez m'écraser. Ah, euh, on est très fiers d'eux, malgré tout. La pression, comment vous l'avez vécu Attendez, excusez-moi. Mm-hmm. donc dañuy continuer waat liggéey bi rek parce que euh, li si suñ kanam mooy daax incha allahu rabi quoi. Mm-hmm. ñu gis na keroog match bi ak Angleterre Angleterre dañoo wan boppam complètement yéen ba match bi jeexee ko dundee foofu ko mooy que donc am amoon nañ ci mbetteel parce que foog ñu woon ne Angleterre dinañu gagné 3-0. Mm-hmm. mais c'est football. donc euh, Angleterre était au-dessus de nous dañ koy nangu. moo ñu ëppoon doole. donc war ñu ko mais boo xoolee tamit. Euh, absence su cadre yi tamit euh, feeñ na si comme comme ku si mel ni Cheikhou Kouyaté comme ku si mel ni Gana tout ça parce que des fois l'expérience dafay jouer si compétition yu mel nii. donc mën nañ. am mën na joueurs yi mën nañu am talent et tout ça mais expérience bi aussi ça joue donc loolu moo ñu manqué woon peut-être que ñooñ bu ñu fi nekkoon waxuma duñ ñu gagné mais peut-être que a a demee nii quoi. Mhm. mais comme li ñuy rek dañ siy jàngat rek pour que les prochaines échéances incha allah rabi yàlla defal ñu jàmm quoi incha allah. Mhm. question bi ni ñoom crise bi waaw xam nga booy ñëw boo demee compétition di ñëw presque sa objectif presque atteindre ko donc booy ñëw da ngay am lu la metti mhm. mais dans l'avion gars yi ñu ngi doon ambiance waxtaan nax nit ñi photo wax gars yi et donc si avion bi c'était cool mais bu ñu wàccee gis supporters yi et tout da ngay gis ne dañuy triste et parce que li ñu bëggoon li ñu bëggaloon peuple sénégalais bi donc atteindre ñu objectif bi day am lu leen métti mais donc sant yàlla donc joxaat gars yi rendez-vous pour les procès mais Seny mais Seny en tant que joueur euh, ngeen ngeen dem coupe du monde euh, sans Sadio Mané naka ngeen ko dundee waaw donc comme li ñuy wax rek absence su Sadio Mané moom defe naa ne loolu jaratul ñu koy natable donc absence la boo xam ne pesé na si équipe bi. donc mais gars comme li ñu waxoon rek donc il fallait que gars yi joué euh, pour Sadio Mané donc def nañ ko. donc mais comme li ñuy wax rek dem nañ ba deuxième tour donc mu nekk euh, un pas de plus par rapport ak 2018 bi nga xamante ne premier tour la ñu éliminé. Mhm. donc comme bii dem nañu huitième de finale donc les prochaines échéances incha allah ñaan nañu yàlla ñu gën a sori incha allah. balaa waaw saf dege te day gën a saf incha allah. de questions. Je ah, soxna si ça va. ça va bien. dafa tey dafa mel ni tey da nga ñëw ngir teeru gaynde yi. waaw waaw. noo tudd. Aminata. ah kan mooy sa joueur. man waaw ah, nan nga dundee coupe du monde. billaay kontaan di xam ne lépp yàlla moo ko dogal. ndam day am ñàkk day am. te lépp ñu xam ne yàlla rek moo ko dinañ am leneen lu ëpp loolu incha allah mais tey jii dañu gis ni bi ñu jogee Coupe d'Afrique nit ñi dañ leen teeru loon teeru woon nit ñu bëri ñëw tey ñi ñëw bëriwul nan nga gisee loolu est-ce que loolu normal non normal mais de j'espère que ñu bari yëguñu ko ñu bëri xamuñu woon que joué dañuy ñëw tey loolu dafa dafa bett ñu bëri presque presque ñu ñuy dëkk ci boor bi kese ñoo xam ne que ñu ñuy ñëw ok merci ok yaa joueur yaa sa pamata fan sa number one <laughs> problème Paate Paate arrêté mais doo wax sa fan ngay yow eh, eh, eh. mais Paate noo gisee accueil bi ñu gisee accueil bi waxal kon su ko du ma ñëw Medina de. bagage waaw loolu force la. mais mais li wér. waaw gisee accueil bi paase. waaw accueil rek. Sénégalais moom ñun amuñu amuñu seen fay quoi lépp lu ñuy def ñoom ñoom ñoo tax gis nañ ñu accueillir loolu mbégte la quoi bu rëy. sa première fois coupe du monde nan nga ko dundee. waaw am émotion bu rëy rêve la woon depuis nekk xale mu nekk réalité léegi lu lu rëy daal ma koy sant yàlla bu baax di remercier coach aussi si opportunité bi. nan la gisee taxawaay waa Medina si yow. Medina yow jëlal. booy da nga de. non dëgg la. mais noo non mais sant yàlla. on est vraiment content de de cet accueil. kontaan nañ ko waa gàcce ngalaama amuñu seen fay. ko dundee coupe du a été un rêve donc ça s'est réalisé donc sant yàlla on a on a essayé de de pousser au maximum mais bon yàlla lii la dogal donc euh, kenn mënu si dara en tout cas je tiens juste à remercier euh, le peuple sénégalais ñu nekkoon suñu ginnaaw di ñu pousse moment yu neex yi moment yu métti yi donc euh, mooy comme li ma wax rek jëm nañ def le maximum yàlla lii la dogal donc sant alors internetu Sunugal comme ni ngeen koy gisee nag ñu ngi fii ci palais de la République. ginnaaw bu ñu demee représenter Sénégal ci coupe du monde ci Qatar mu doon déjà lu jafe ndax adduna bi yëpp fanweeri dëkk ak ñaar dong ñoo mënoon am grade boobu dem ci coupe du monde ba ñu demee tam wane nañu ngóora. wane pas-pas wane njàmbaar ba yàlla def ñu bokk si ñu génn ci match poule yi dem qualifié huitième de finale huitième de finale nag mooy fanweer ak ñaar yi demoon ñi ci ña fa yegg mooy fukki ak juróom-benn genn wàll gi donc tey Sénégal bokk na ci fukki équipe ak juróom-benn yi gën a jëm kanam ci àdduna bi waaw léegi loolu bu ñu bu fekkee doy ñu lan moo ñu mën a doy dans le monde entier fukki équipe ak juróom-benn ñu lim ci Sénégal loolu doy na ndam parce que dam nag coupe du monde dañoo xam ne processus la même bu ñu naan ñu ngi koy xaar fii xam nañ ne loolu dañ dañuy tendre vers loolu dañ koy organiser liggéey la du ay wax walla toog rek naan il faut ñu andi coupe bi fii foo foo jaar bi andi ko dafa am processus Sénégal déjà processus moo tax ñu jëli coupe d'Afrique processus moo tax ñu qualifié waat. pour une deuxième fois consécutive lii nekk ndam mooy troisième fois consécutive ñu demaat mondial su boobaa nag ñu yegg minimum quart de finale nañ ko defee woon deux mille deux wala demi-finale comme tey jii Maroc mu ngi dem quart de finale maa ngi profiter pour féliciter les Lions de l'Atlas on a buuru léegi pour wan ko ne tey Maroc moo représenter tout l'espoir de l'Afrique kon ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñaanal yàlla may leen ndam donc nous allons continuer liggéey boobu jàppalewaat leen te réew mi yëpp leen war a jàppale pour que d'abord Coupe d'Afrique bii di ñëw ngeen mën a téye seen raaya maanaam gañewaat ko lu war a mën nekk la loolu c'est à votre portée c'est à notre portée dañ ciy liggéeyaat rek euh, ñëpp jàpp si waaye ñu liggéeyaat. pour parce que coupe du monde bële di ñëw tey lañ koy tàmbali doo xaar ba mu des at ngay jóg di kurti kurti non da ngay commencé jóg xool lan moo doxul ci campagne bi fan la ñu war a yokk liggéey lan la ñu war a soigner yan aspect la ñuy defaraat ci ci ci équipe bi ci encadrement bi ci lépp ci administration su ko defee beneen yoon dañuy gën a jëm kanam waaye nekk fi rek di di décourager loolu du tax nit jëm kanam kon nee naa gàcce ngaalaama gaynde yi dëgg la dem ngeen huitième de finale foofu la ñu yem nañ ko nangu te waajal beneen yoon ñu dem fu ëpp huitième de finale loolu tax ma ne leen gàcce ngaalaama moo tax raaya bi nga kii bi nga xam ne waroon nañ ko joxe ah, mérité ngeen ko te dinañ ko def incha allah pour gën leen jàppale gën a jàppale équipe bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina. membre encadrement technique coach bi ak entraîneur yi ànd ak moom médecin yi euh, ñoom El Hadj Diouf dañ ko ne mu toppee ay rakkam euh, ak euh, waa fédération bi président fédération maa ngi lay remercier di la gërëm parce que Sénégal amul benn problème bi mu demee Qatar amul benn jafe-jafe boo xam ne gis nañu ko fa ci wàllu liggéeyu fédération bi loolu aussi lu am solo la parce que souvent du loolu la ñuy gis Afrique kon maa ngi saluer esprit bi am seen diggante ak ministère de sports esprit bi am ci biir fédération bi ci biir comité fédéral ak ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi ciy yëngatu waaye nag war ngeen fexe ay jigéen di ci bokk aussi te loolu tam problème la benn jigéen moo ci bokk loolu loolu doyul donc bravo benn bi nga xam benn ñebe si cin <laughs> mais da ngeen da ngay wut eh, yeneen jigéen ñu dugg ci fédération bi am bu ñu leen waree copter sax. ñu copter leen. voilà ñu copter leen quand loolu mooy li li jaadu donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax dem leen nag ngeen noppalu le temps de reprendre euh, le football dans vos équipes mais surtout ngeen seetiwaat seen i mbokk vraiment jotoon na ñu bàyyi leen ngeen dellu si njaboot gi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam